ñun euh, africain ñun sénégalais dañoo aliéné aliéné ba nous préférons souvent être Paris être Turquie être États-Unis plutôt qu'être Afrique, plutôt qu'être Sénégal, plutôt qu'être Bamako, plutôt qu'être Niger. bëri na ñoo xam ne jamono yële passé il s'était mobilisé mais je suis George Floyd naam sax afro-américains yi ci ñun la ñu bokk suñu diaspora la ñu bokk. et war nañ leen témoigner solidarité saay ñu leen nootee waaye bu fekkee nous sommes pressés d'être George Floyd lan moo tax nous ne sommes pas pressés d'être Sénégal d'être Afrique kan moo ñuy waxal béykat lives matter kan moo ñuy waxal sàmmkat lives matter kan moo ñuy waxal étudiant lives matter kan moo ñuy waxal liggéeykat lives matter kan moo ñu koy waxal ku dul suñu et donc war nañ am fulla ak ci li nga xam ne ñun moo ñuy dal gis ngeen quand l'enfant syrien s'est noyé dans la mer Méditerranée le monde s'est levé mais quand les Africains meurent dans le désert du Sahara quand les Africains meurent dans l'océan Atlantique quand ils meurent dans la mer Méditerranée c'est le silence, c'est le silence total et donc ñun africain ñun sénégalais war nañ am fulla ak fayda ak jóg ci suñu bopp moo tax je demande aux membres du collectif 480 ak ñi nga xam ne ñu fi nekk ñu tàccu seen bopp parce que vous êtes le Sénégal debout. dëgg la il y a des Sénégalais endormis ñun ñoo leen war a yee dëgg la il y a des Sénégalais éveillés mais qui ont décidé de rester assis de rester couchés. yéen vous faites partie des Sénégalais éveillés qui ont décidé d'être debout de se lever moo tax il faut que ñu rafetlu teewaay bi il faut que ñu rafetlu manifestation bi buñ ko xeeb bravo à tous félicitations à tous euh, tey jii nii c'est parce que Union européenne dafa teg ses genoux sur notre cou que la jeunesse de ce pays prend la route du désert que la jeunesse de ce pays prend la route de l'océan Atlantique tey jii nii c'est parce que les entreprises françaises les entreprises turques les entreprises impérialistes dañoo teg seen genou ci baatu Sénégal ci baatu Afrique que le peuple africain que le peuple sénégalais di jël euh, la route de l'océan Atlantique ou de la mer Méditerranée mbokk yi mbir mi jafewul de dama ne Sénégal bii jël gaal dafay topp jën yi nga xam ne moom la ñu manque fii te muy dem Union européenne askan wi nga xam ne mooy jël gaal gi dafay topp les flux inanci les flux financiers illicites yi nga xam ne ñooy jóge fii Afrique jóge Sénégal di dem dans les comptes en banque suisse askan yi nga xam ne ñooy jël gaal dañuy topp l'argent volé par les politiciens de ce pays et de ce continent et qui loge dans les banques suisses dans les banques françaises dans les banques états-uniennes askan bi nga xam ne mu ngi jël gaal gi dafay topp en fait wurus bi nga xam ne mu ngi ci Sénégal ñu ne téeméer boo jël juróom-ñeent fukki mu ngi dem bitim réew dafay topp zircon bi nga xam ne ñu ngi koy jëlee fii Sénégal téeméer boo jël quatre vingt pour cent yi di dem bitim réew askan bii di jël gaal gi day jël gaal gi pour topp bénéfice yi nga xam ne entreprise yi ak parfois des patrons sénégalais ñu koy def ci ndodd askanu Sénégal ñu koy def ci ndodd liggéeykatu Sénégal bénéfice yooyu la ñuy topp parce que ces bénéfices là sont logés dans des comptes en banque en Italie en Espagne ak feneen et donc yu waa doon wax bu fekkee da ngaa bëgg a jàmm da ngay xeex les causes de la guerre bu fekkee da ngaa bëgg a xeex immigration irrégulière da ngay xeex pas les symptômes mais les causes de l'immigration irrégulière te émigration irrégulière ñun ñëpp xam nañ ne nooteel bi nga xam ne ñun ñu koy noot ñun Sénégal ñun Afrique waaye itam politiciens sénégalais yi nga xam ne dañuy jël seen genou di ko teg ci loosu askanu Sénégal nooteel googu moo tas yaakaaru askanu Sénégal nooteel googu moo tas yaakaaru ndawu Sénégal moo tas yaakaaru béykatu Sénégal moo tas yaakaaru liggéeykatu Sénégal et donc si on veut lutter contre l'immigration irrégulière il faut nécessairement traiter le mal par la racine. La plus grande responsabilité, c'est la responsabilité de nos autorités. ndaxte li ma wax noonu yëpp ñoom ñoo ko def waaye mbokk yi mbokk yi nañu interpeller itam suñuy famille yàkkamte nañ loolu am le dernier iPhone yàkkamte nañ loolu am le dernier cheveux naturel yàkkamte nañ loolu am le dernier tissu ñuy def pression sur les membres de nos familles dans nos familles lan moo fa am ku fa am xaalis moom la ñuy jox gëdd boo amul xëy boo amul gont kenn du la faale ci sa biir kër ci sa biir njabot ça également c'est de la pression voilà comment on assassine socialement le peuple sénégalais avant de l'assassiner physiquement dans la mer Méditerranée dans l'océan Atlantique et dans le désert du Sahara donc ñun itam foog ñu xoolaat suñu jikko luy iPhone luy dernier iPhone luy iPod luy dernier tissu luy dernier cheveux naturel foog ñu wax itam ak ñenn ci suñu kilifa diine chrétien yi ak ñenn ci suñu kilifa diine musulman yi ak ñenn ci suñu kilifa aada yi ndaxte ñun taalibe yi gis nañ yenn saa yi ñuy doxalee ak ñun. taalibe bu gën a duuf enveloppe moom i ñuy fulal taalibe boo xam ne amul tus kenn du la fay dal ça également c' est des pressions psychologiques yu ñuy def ci kaw askanu Sénégal et donc faut pas s'étonner à ce que les gens veuillent aller en Italie en Espagne nous sommes complices nous sommes tous responsables il faut qu'on ait l'honnêteté de le dire je le répète la plus grande part de responsabilité c'est l'État waaye ñun itam nañu xoolaat suñu bopp nañu xoolaat suñu bopp fi may daanelee mooy ah waa jii de daan na wax te d'accord naa ci dis-moi quel dirigeant tu as je te dirai quel peuple tu auras dama ne dirigeant yoo xam ne dañuy dem juddoo bitim réew dañuy ut ay nationalité bitim réew dañuy dem wasin bitim réew dañuy dem faju bitim réew dañuy dem vacances bitim réew dañuy dem jàngi bitim réew dee rek la ñuy def Sénégal mais quel message vous dites quel message vous donnez à la jeunesse de ce pays-là Quel message vous donnez au peuple sénégalais, au peuple africain Donc oui, vous êtes les premiers responsables. Jërë ngeen jëf